merci d'être là ñu ngi lay nuyu di leen féliciter aussi ci euh, lii ngeen indil Sénégal mais bàyyi la nga nuyoog téléspectateurs yeeg internet yi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan sama fils la <laughs> ah. merci docteur d'être là. Ah. Mhm. Euh, di nuyu Sénégal yëpp. Mhm. Euh, et puis c'est un plaisir pour ñun que daanaka ñu mën a teew fii. pour mën a daanaka bokk ak waa Sénégal ndam li nga xamante ne moom lañ jëlee fële di Cameroun. waaw mu doonoon nag vraiment une expérience. Mm-hmm. et vraiment. ça été très très très très vraiment apprécié par ñun en tout cas et je sais que ne aussi xam naa ne bés bu ñu ko séddoowee ak yéen. Uh-huh. di ngeen ci maanaam jëlee mbégte bi ñu ci jëlee ñun quoi. mais avant de parler diggante seen dem ak seen ñëw ak compétition yi ni mu demee woon Cameroun euh, c'est-à-dire ku yëg ni euh, équipe nationale bu Sénégal euh, nekk na champion d'Afrique ci boxe française mais malheureusement coowuñ ci noonu dafa dañ ci am pincement au cœur. Mm-hmm. xaw ma ndax yéen jot ngeen am sentiment boobu noonu. oui oui oui parce que en fait du tey kese. parce mm-hmm. que dafa yàgg quoi bon on est là depuis euh, pour mo disons déjà wax la tuuti savate bi moo ngi commencé au Sénégal depuis 1979. depuis 79 la commencé fii Sénégal et on a eu vraiment beaucoup beaucoup de champions. Mm-hmm. on n'a jamais eu vraiment. Mm-hmm. maanaam presse bi nga xam ne moom la war a am autour de cette discipline moo amul. Mhm. te wax nga ko léegi c'est une discipline qui est absolument complète. complet bon bu ñu xuusee ba ci biir dinaa ci jox ay maanaam application yoo xamante ne à la base en fait Sénégal ñëpp ko war a def. ñëpp war def sawat. muy mag di ndaw paa yeeg ñëpp dañ ko war a def. donc c'est pas pour rien ñu tuddee ko boxe française Exactement. parce que c'est un mélange de boxe bi ñu xam anglaise bi ak mm. peut Euh, préparatif yi ba ngeen dem Cameroun ba nekk équipe championne d'Afrique alors bon pour euh, commencer ci loolu euh, damay déjà permettre de remercier ñi nga xam ne ñooy waa ministère des sports mm -hmm. donte que disons que peut-être que ñoom seen moyen mhm. parce qu'ils voudraient bien peut-être aider mais c'est pas tout le temps vraiment possible wala facile ci ñoom mhm. mais ils nous ont quand même permis quelque chose mhm. et on a eu à faire une préparation interne boo xamante ne c'est dans les quinze jours pratiquement lañ préparé. ci quinze jours kese kese kese kese. donc euh, ça c'est méttoon na trop si ñoom mm-hmm. dinañ la ko wax parce que mm-hmm. daj nañ ci lu métti mm-hmm. c'était normal parce que boxe la def du lu yomb quoi on les a préparés et puis vraiment dem nañ alhamdulilah dans les conditions qu'il fallait bi ñu demee aussi tamit on était dans de bonnes conditions foofu parce que ñu dem xeexi wala représenter teg dans de bonnes conditions donc euh, on a vraiment pas hésité sur cela quoi franchement alhamdulilah on les a mis dans solution qu'il fallait. Mhm. et le résultat il est visible. bah oui lan moo ci taxawaayu fédération bi parce que tey euh, boo ci nekkul woon ñoom buñ ci amee ndam bu jàmbat amee ñu mel ni yow la ñuy ñëw seeti donc nga bokk ci kilifa. Mhm. yu ministère des sports. Mhm. est-ce que euh, yéen kilifa yi yéen a ngi taxaw bu baax ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci art martial bii di euh, boxe française est-ce que yéen a ngi ciy def li ci war aussi. bon je pense que d'une part ñoom dinañ la ci mën a tontu ñoom directement déjà. Uh-huh. mais bu loolu weesoo aussi xam nga man ak yow. dañoo bokk fi ñu sokkee ko mhm. foofu dafa doon terre de sport mhm. donc savate bi man maa ngi ci depuis plus d'une vingtaine d'années mhm. donc euh, ku ko ku ci jaar xam li ci nekk aussi boo demee ba jiite ko tu ne peux que def vraiment ce qu'il y a de mieux parce que da nga am maîtrise quoi voilà ouais d'où importance su def ko euh, Mamadou Ndiaye on va te retrouver euh, comme ça yow itam tu as posé quelques questions je sais que tu as envie de xam li ci nekk yëpp ak euh, euh, taxawaayu fédération bi surtout ba ñu am ci ay champions et des championnes. voilà loolu loolu am na solo El wax na ko léegi remercier na fédération bi mais ñoom euh, li nga wax sànq mooy que presse bi wax gënewul leen fësaluñu leen bu baax a baax. ci champ ci euh, tournoi bi ñu dem. waxal la presse bi talul dara Juan Branco moom <laughs> oh, dañoo sonn. mais talu leen dara Juan Branco Mame Ndiaye Savon. <laughs> c'est trop alors qu'il y a des choses quand même euh, vraiment euh, voilà quoi. loolu dëgg la loolu dëgg la El Hadj mais waaye xam nga sabat tamit ñoom ñi ngi ci ñi ngi ci di góorgóorlu mais comme ni ñu koy waxee gën a liggéey ci suuf pour saal yi di gën di bari. ñuy gën a xale yi am na ci ñu ngi doonte am na ci yenn gox-goxaan yi mais surtout ñu gën a former. mais savate méttiwul doso boo dem mën nga fa entraîner def def savate <laughs> boxing quand mais non il faut docteur wax ñu loolu nu muy demee ak xale yi nga xam ne am nañu ambition wala euh, bëgg li nga xamante ne mooy savate boxing. bon je bàyyi ma poser la question bi. Mhm. Euh, euh, lan mooy savate boxing. waaw bon comme ni nga ko doon waxee sànq c'est une discipline boo xamante ne. suñ ko doon maanaam euh, décrire def brièvement dañuy wax naan. Mm-hmm. boxe la boo xamante ne day am pied et point. Mm-hmm. bon contrairement aux autres boxes dañ ko tuddee savate. a mm-hmm. cause de dàll bi ñuy sol. ah dàll bi dàll bi moo tudd savate. d'accord voilà. li ci gën a doy waar mooy ne dàll bi ak dàll bi boo ko solee maanaam partie wu tànk bi yëpp day mën a dóor. voilà moo tax ñu tuddee ko savate. donc. souvent am na ñu koy wooyee boxe française. lu tax parce que ñoom ñoo ko créé ci ñoom la bàyyeeku ci seen tradition la jóge. d'accord en fait looloo tax quoi ñu tuddee ko bon appellation boobu resté quoi. Mhm. voilà mais et pourquoi euh, la bu complet. oui mooy li ma doon commencer expliquer léegi c'est-à-dire que dañuy dooree dàll bi. Mhm. mais aussi boo jëlee maanaam yaramu doomu aadama ci kaw ba ci suuf lépp la ñuy dóor ñu. Mhm. boo demee ci anglaise ñoom maanaam. ci kaw rek la ñuy dóor yaa ngi gis boo demee taekwondo aussi c'est à la même chose. mais savate du pied jusqu'à la tête lépp la ñuy dóor ñun bu ñu bàyyi dara. Mm. voilà moo tax quoi. Mm-hmm. et aar boo xamante ne boo ci nekkee non seulement da ngay am disons une aptitude au niveau des mains mais mm-hmm. aussi au niveau des pieds. Mm-hmm. voilà et c'est un truc boo xam ne c'est il y a plein plein de déplacements. voilà tu sport la boo xamante ne tu es tout le temps actif tu bouges tout le temps. sur les nombres de rounds yi nga xam ne moom nga war a jàll tu es obligé de tout le temps Mhm. bari na on est sous silence on dira mais n'empêche qu'il y a beaucoup de clubs qui sont déjà à Dakar. Mhm. mais euh, fédération bi ñun on est là pratiquement depuis huit mois. Mhm. et première politique bi nga xam ne moom la teg mooy la politique d'expansion de la discipline. et en pratiquement huit mois léegi on a pu créer quelque chose comme trois clubs dans le sud. et deux clubs dans le nord. léegi nag bon. on y va crescendo quoi. Mm-hmm. Mm-hmm. et peut-être daal bu yàlla defee jàmm d'ici ñuy dugg 2024 on pourra avoir la savate dans toutes les régions. Mm-hmm. voilà et pourquoi euh, Mamadou Ndiaye mën nga ko seede toujours euh, yaa ngi wax ni fédération bi ñu ngi ko am il y a huit mois pourquoi mën nañ ko jàppee retard pourquoi ce retard pourquoi il y huit mois ñu doog am fédération sénégalaise. Euh, de savate boxing. non en fait waxuma ne waxuma loolu c'est-à-dire que il une autre. ba amoon na beneen bureau bu fi nekkoon. ah amoon na fédération mais man je suis arrivé à la tête depuis. janvier ah d' donc yàggul noonu. fekk nga fi jafe-jafe. moo lan moo jafe-jafe yi nga xamante bi nga ñëwee eh, gis nga ko fii ak naka yan jéego ngay dox nii pour résoudre li nga xamante ni mooy jafe-jafe savate. jafe-jafe bi ci njëkk mooy lan problème d' infrastructure. Mm-hmm. parce que pour def savate il faut vraiment avoir des infrastructures. Mm-hmm. et là on en a vraiment pas. Mm-hmm. et donc euh, loolu aussi dañ ci peut-être lancer appel au niveau des autorités pour ñu gën cee jàpp. parce que yàlla dafa def ñun moom Sénégal quoi d'une certaine manière. dañoo am une affinité avec la savate. on a d'excellents tireurs. et bi ñu demee Cameroun ñoom ñëpp dañoo yéemu parce que ils se sont posé la question ndax sénégalais ñoom dañuy dem di def ay stage à l'extérieur. alors que ñun les sept tireurs yi ñu yóbbu yëpp kenn mësul génn Sénégal. yëpp fii lañu fii lañu ko jàngee fii lépp fii. pas vrai ci saal yi nekk dans la banlieue. waaw voilà loolu moom c' est vraiment quelque chose quoi. Mm -hmm. fait que bon bu infrastructure amee bon on va pouvoir faire beaucoup plus que ça. Mm voilà euh, wax nga ko tireur yëpp fii lañ leen formé léegi naka ngeen def ci championnat bi ngeen dem euh, du ma wax naka ngeen def ba gagné man victoire yi lan moo nekkoon motivation yi ba victoire bu ni mel ngeen am ko victoire finale ci kanamu ay dëkk yu mag ah, yoo xamante ne ñuy def sabat ñu xam leen surtout fii ci Afrique ay je pense à Île Maurice ak Cameroun gi nga xamante ne foofu lañ doon organiser tournoi bi. Hmm. alors bon ñoom dañuy jugee Sénégal maanaam les tireurs yóbbaale benn motivation bu mat sëkk c'est-à-dire que xam nañ ne ñoom li ñuy def mën nañ ko te nañ ko. et musuñu am disons maanaam complexe devant qui que ce soit. Mhm. et la fédération aussi pour les mettre dans les meilleures conditions dañoo defoon benn open bu ñu def au mois de mars. Mhm. on avait invité la Belgique et l' mhm. euh, pour boxe ak ñoom. et on les a battus. Sur les cinq combats internationaux, le Sénégal a remporté les cinq. Mhm. Donc ça veut dire que ñoom déjà ils savaient que ñoom mën nañ ko. ils mhm. étaient prêts pour ça. Mhm. donc préparation disons championnat d'Afrique bi moo nekkoon open international boobu. Mm ku mën a jàkkaarloog deuxième ak troisième mondial nga daan leen. waaw soo ñëwee en Afrique boo brillé aussi yow la neex. boo nekkul équipe championne. Euh, dañu la koy laaj yaa ngi ànd ak euh, deux championnes. Mm. Euh, parce que c'est c'est toute une équipe qui était partie pour quand même représenter Sénégal ba indi ay médailles ba tey euh, équipe nationale de football bi toll équipe nationale bu sabat boxing bi toll foofu je pense que c'est une fierté pour yéen ñi nga xamante ni yéen a jiite fédération bi Abdoulaye effectivement mhm. d'accord donc ñu ngi leen di remercier bu baax mhm. suñu ndam la fédération bi mais suñu ndam la aussi pour euh, Sénégal yi yëpp mhm. parce que dañoo demoon représenter dignement le Sénégal Euh, peut-être li président li may ajouté rek par rapport ak li mu wax. Euh, question Mamadou Mouhamed Ndiaye bi. Mhm. mooy sabat mi ngi fi. Mhm. donc nekkul discipline boo xam ne tamit ñu koy pratiquer bariwul. Mhm. parce que booy xool nous avons plus de 500 pratiquants. Ah, au niveau national ah. donc am na ñu bari ñu koy pratiquer. ñu koy aussi ñi ci ëpp. dañoo nekk dans la banlieue. donc boo demee mel ni Thiaroye Sam Sam yi nga xam ne su ñaari champion yëpp fa la ñu nekk. nga dem fu mel ni euh, Guédiawaye nga xam ne man mooy sama club. président club ba mu nekk Birkan Abdou Diassé. passé. Euh, de part et d'autre ñu ngi koy pratiquer à l'université Gaston Berger également étudiants yi ñu ngi fa di ko pratiquer. puisque ñun ñii di wax foofu lañ sokkee ko. Euh, discipline la boo xam ne ñu koy pratiquer bari nañ lool lool amaana nag comme politique bi nga xam ne moom le président wax tout à l'heure ñi ngi ci expansion pour que région yëpp mën koo mën a am. am na club yu bees yi nga xam ne sosu nañ fi nga xam ne mooy dans le sud. te prochainement depuis huit mois ñu fal ko objectif am mooy gën a jaay euh, li nga xamante ni mooy savate bi euh, ça on s'en rend euh, te loolu itam Sénégal daf koy soxla ñu dénk yenn yi ay nit yoo xamante ni seen objectif mooy gën a jëmale kanam li ñu leen dénk te loolu mooy taxawaayu docteur Matar Ciss la preuve tey bu ngeen ñëwee ci télévision Futur Média ça veut dire que bëri na ay jéego yoo xamante ni fédération bi ci boppam mettre na ko en place pour gën mun a jaay savate savate savate boxing bi. comme ni mu la ko waxee tout de suite par rapport à l'université parce que actuellement nii bon déjà bi moo jugee au Cameroun. Mhm. Euh, jot naa fa gisante ak ñoo xam ne ils sont dans l'armée et mhm. ils ont souhaité à ce que ñun. ñu jàppale leen pour que ñu mën organiser au moins benn championnat militaire. Ah. de savate en Afrique. donc euh, comme déjà ni nga ko on est déjà dans un camp. on forme déjà des hommes de tenue et ah tout ça. ça veut que donc euh, déjà am nañ point de départ. Mm-hmm. maintenant ce qui reste c'est peut-être bon voir un peu les autorités nga xam ils sont dans l'armée et tout ça. pour mm-hmm. voir comment intégrer cela dans le truc. Mm-hmm. d'autant plus que beneen bi a déjà l'UGV de que aussi bu ñu ko amee à fële en Casamance. Euh, mm-hmm. dans le sud. Mm-hmm. on aura pratiquement on pourra carrément démarrer le tournant universitaire en plus quoi. Mm-hmm. par rapport à la petite catégorie nag on a aussi fait benn compétition il moins deux mois. c'était à Pikine Batora. Ah, et petite catégorie pour une première fois ils ont pu vraiment ñoom se montrer vraiment ils ont exceptionnels aussi. waaw booy moom dama leen di ñuy boxe damay. bah sax y y a y a boxing. Mm -hmm. comment peuvent-ils léegi pour ñooñu. Mhm. je pense que la première chose mooy les rassurer. Ah. par rapport au fait ne boo déggee boxe rek da xaw a ragal. waaw voilà alors que ñun dañu am benn forme de maanaam de boxe boo xamante ne. Mhm. boobu ñëpp mën nañ ko def amul ah. gaañante amul dara. moom la ñuy woowee assaut. Mhm. foofu xel la ñuy utiliser. technicité la ñuy utiliser. comprendre boo dóoree mu fort sax. arbitre bi daf lay sanctionner. donc boobu noonu c'est vraiment ouvert à tout le monde. que maanaam comme ñun sax boo xoolee Sénégal loolu gën a privilégié mhm. maanaam asso bi mu doon loo xam te ñun on a vraiment une aptitude naturelle mhm. pour asso bi mhm. léegi nag ñi nga xam ne ils veulent vraiment aller plus ñooñu la ñuy autoriser ñu dem defi combat total et puis insister surtout ci ci ci que euh, il faut nga def lu mel ni savate pour mën a am maîtrise te maîtrise boobu noonu àdduna daf ko laaj maanaam di nga mën a duma nit sax mais le fait nga def savate bi mooy tax nga am maîtrise ba finalement doo doon sax kuy gaañe waaw loolu dinaa la ci may defe xale yëpp war nañ leen cee tàggat en fait. voilà est vrai que neexul wax. mais dernièrement on a vu des tensions ci suñ dëkk yoo xamante ne. loolu noonu yëpp képp ku def aar. Uh-huh. parce que du du hasard ñuy tuddee aar yi discipline. ah oui dafa am lu muy def ci yow. yar boobu noonu day tax ba yenn yi mënoo cee bokk. Ah, ah, voilà ah. loolu c' une chose. beneen bi aussi mooy que ce soit aussi toutes les personnes yi nga xam ne ils sont carrément des travailleurs et tout parce que stress day sonal doomu aadama yëpp. Mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm, et ñun on a aussi tout ça. des choses yoo xam ne ça permet de gérer le stress. ça permet vraiment d' une confiance en soi te loolu noonu yëpp ci biir sabat bi la nekk. voilà voilà ngi ñëw ànd ak euh, euh, Bintu ak Aram deux championnes euh, jigéen yuy boxe dem ba nekk championne d'Afrique loolu peut-être neexul a gëm mais am nañ ko ñun Sénégal et ça existe dans d'autres pays félicitations à vous xaw ma ku ci njëkk wax nag Bintu wala Aram. voilà Bintu yow la ñuy njëkk a déglu amul rus voilà <laughs> félicitation Bintu est-ce que mën nga ñu wax euh, quelle a été euh, sa sa participation sa taxawaay ci euh, championnat bi ba Sénégal nekk équipe championne grâce à toi. secrétaire général donc sama euh, taxawaay ci mbir yi mooy mhm. déjà bi ñu nekkee fii mhm. dañoo dugal regroupement interne mhm. ñu toppatoo ñu teg ñu dans des bonnes conditions alhamdulilah ñu sant suñu bopp bu baax ñu am motivation et que ni on doit remporter ce qui nous appartient ñu dem ak moral bu bien avec euh, sama xarit yi ak li nga xamante ni ñëwuñu aussi ñu dem jël li nga xamante ni moom lañu moom. Mhm. parce que bu ñuy dem wax nañ leen ko. Mhm. ñoom ñu doon tiital ci aéroport yi. ñoo ngi dex ñu nekk eh, ñoo fa da ngeen fa fekk ay champion en fait ñu voilà. <laughs> comme ki sama xarit bi dajeel. Mhm. mooy loolu mais dem nañ jël li moom en tout cas wan nañ leen ekk ni fii ñoo ko moom. yóbbu nañ ko ba Cameroun macha allah. ñaataat nga am. j'ai vingt ans. vingt ans kañ nga dugg ci euh, euh, savate. ça fait pas un an. ça fait pas un an lan moo tax nga dugg ci. ba mun naa wax ni sama mag bu jigéen moom ma gënoon a motiver ak sama benn xarit bu ñu woowee Awa. Uh-huh. parce que dama daan toog di fitness di leen gis ñuy boxe affaire neexoon moo et tout. Uh-huh. maa ngi waxee bonjour rek wax ko sama papa sama papa boole maag uh-huh. après mooy coach maître Lamine. après Lamine formé ma et ma nekk. te fan ngay entraîner. Caaroy Caaroy ngay entraîner donc yow fierté Caaroy nga. oui. <laughs> ça veut dire que même pas un an. nit mën na nekk champion. ci savate boxing. Sénégal parce que man je je savais pas que. non euh, da nga préciser Sénégal foog nga préciser Sénégal. Sénégal ñun ñoom ah. <laughs> parce que man dama jàppoon ni il faut nga def at. balaa nga ci balaa ngay bokk compétition sax ba ci nekk champion mais en un an mu nekk championne d'Afrique. loolu euh, Sénégal rek la ko la ko nit mën a dama la doon wax sànq ne ñun dañu benn aptitude naturelle. Mhm. loolu yàlla moo ko def ci mhm. Sénégalais. Mhm. c'est-à-dire que ni bon facilement ñun dañuy dem surtout en matière de sport de combat. Mhm. et rawatina nag savate bi. Mhm. Mhm. voilà gis nga petite catégorie bi. bés boo kiiwee peut-être mën nañ la booleeg ñoom nga xool leen mais ils sont exceptionnels. ah oui ah oui ay boo xam ne bu ñu nekkee ci kaw ring bi maanaam osé bi ñuy àndal sax day yéem. mais en un an ah Arame nekk championne. et double championne double. voilà parce que ñaari médaille nga takk. waaw. Mm. ça veut dire quoi double double double championne. voilà donc euh, il faut ñu taxaw tamit ci performance yi nga xam ne def nañ ko. waaw parce que y a eu des performances uh-huh. bu ñuy inédites mooy moom mi doon wax. Uh-huh. donte ne nee na bi mu tàmbalee yàggul. ak ni ko président waxee. parce que am na benn expertise bu nekk derrière. aussi ba ñi nga xam ne teel nañ koo tàmbali sax. ku gën a wane jom fulla ak fayda rek moom mooy nekk ci kanam. parce que les double champions d'Afrique. c'est quelque chose d'inédit mooy histoire savate africaine. yàgg na fi. la première fois mu am. nit ki nekk double champion nekk champion en assaut nekk champion en combat. donc c' une première. muy moom mi nga xam ne moo ko am ak suñu beneen tireur boo xam ne tamit xale bu ndaw la. Mhm. am 18 ans. Mhm. nekk tamit double champion d' ñoom ñu ñaar ñu def loo xam ne jaloor yu rëy goo xam ne musta am Afrique. donc muy loo xam ne dañ leen ko kii ñoom ñaar ñii ngay gis tamit. Mhm. ñoom ñaar ñuy meilleure tireuse. bu ñu nee tireuse suñu jargon mooy meilleure athlète yi. ci combat ak asso mhm. ci jigéen ñi mhm. maanaam compétition bi yëpp bi mu jàllee ñoom lañ jox meilleur tireur en asso ak meilleur tireur en combat bravo donc muy performance yu exceptionnelle yi nga xam ne suñu équipe nationale bi remporté nañ ko ñu nekkoon sept dong nag ah. indi treize médailles sept di treize médailles ah. bon xaaral ma wax ak Bintu Bintu ñu ngi lay nuyu yow tamit lan moo nekkoon ki lay tee lan moo nekkoon sa euh, sa taxawaay euh, ci euh, championnat championnat d'Afrique bii ngeen jógee ba am ci treize médailles Euh, Adam plutôt voilà waaw. <laughs> maaleykum je pensais que a wax Bintu ndekete Bintu moo njëkk c'est pas grave. <laughs> tey am naa contentement tey bi ak mm-hmm. tamit sama président ak SG. Mm-hmm. di nuyu fédération bi yëpp aussi tey jii di tax ñu dem représenter Sénégal. Mm-hmm. tey ji suñ feete bu rëy la hmm. fierté bu rëy lañ am hmm. pour représenter Sénégal hmm. honneur la ndax ñu tànn la ci 14 millions ah ñu génnee la ci nela la yow yaa meilleur loolu dafa neex nga dem représenter Sénégal gagné indi trophée yi te ñu nekk 13 éléments nekk 7 éléments indi 13 médailles ah, ah. ak ay trophées yoo xam ne nii tamit dañ la ko nommé mhm. en tant que meilleur tireur mhm. meilleure tireuse aussi ci Sénégal mhm. ci Afrique bi yëpp loolu dafa rëy euh, fédération bi aussi teg nañu ci ay conditions yoo xam ne nii nit ñi saxaarewuñu ko c'est ñu ñu xaarawuñu ko woon. Mm-hmm. teg ñu si ay conditions yu baax. Mm-hmm. nga jëlee ñu suñu kër rek mooy loolu. mais mais mais mais eh, Bintu wax na ko léegi dégg naa yow ki nga taseloon c'était ça a été dur pour toi. comme du champion bu ndaw quoi. non non mais terewul nga nga gagné ko mm-hmm. comme ça. waaw <laughs> sénégalaise laa tamit. mënuma bàyyi beneen. réew ñëw di tegu sama kaw loolu du ma ko nangu. waaw loolu sénégalaise du ko nangu. Ah, loolu du ma <laughs> ba ñu wàccee pays bi tag la ñu commencé di menacer. tamit ah waa ndax ndax footballeur yi fa jaar ndax footballeur yi yooyu noonu. dañoo wàcc rek ñu attaqué ñu. ñu ne ñun fii Cameroun li ñu fa indi lenn kese la jëluñu moom de mille waaw ndax ñun Sénégal loolu lañu xam mm-hmm. fu ñu mënti dem si réew mm-hmm. dañuy jëluñu moom de mille yaa ngi def yaa def sabat depuis kañ deux ans la ah yow tam yàgguloo ci noonu ban club nga nekk dragon rouge. Mm, fan la nekk dragon rouge. même chose ah, sans yéen a yéen a bokk yéen bokk fu ngeen nekk ko à Thiaroye. tey qu'est-ce que tu envie de dire aux aux, aux jeunes sa moroom yi jigéen yi lan nga lan nga am envie wax leen tey boo demee ba nekk champion d'Afrique. Euh, li ma am envie wax leen ko leen kese la. Mm. Mm. def sport. nekkul nekkul dañ koy def pour dem di xeex wala di genre. non seulement dañuy éduquer. dañuy contrôler suñu mel mm-hmm. à chaque fois mm-hmm. mais def sport nekkul comme pour dem di xuloo wala di xeex ñun mm-hmm. loolu taxu ñoo jug comprendre ñu dañuy def sport ndax dañ koo bëgg li ñu bëgg la te nit ku nekk dangaa war a am loo bëgg nga koy def waaw di tamit remercier waale sama yaay au passage. <laughs> parce que bu dul woon parents yi aussi du ngeen dem ba tollu fi ah. waaw <laughs> ah, bu nekkul woon moom tay jii. <laughs> Eh. du ma du ma du ma sax nekk fii. Mhm. def espoir ndax man boxe nekkul woon sama objectif. Mhm. man karaté ma nekkoon sama objectif. mais tey jii. accompagne ñii. Mhm. moo dem moo dem ba tax man tey ma bëgg ma bëgg sport. non Savath Savath Sénégal kay am na chance bi mu amee président bu mel ni docteur Matar Cissé. Ah, ah, donc ci huit mois yi mu toog ak objectif yi nga xamante ni am na ko am na ñu yaakaar euh, ni Savath euh, dina gën a jëm kanam. fii Sénégal non seulement mois yi dix huit médailles lañ indi. dix huit médailles. macha allah trois trophées. macha allah macha allah trois trophées. macha allah. waaw ah, jii nag ñun suñu sañoon tey ji. Euh, ministère recevoir ni ndax xam nga lu tax ma wax loolu mm. ndax euh, dañoo dem représenter Sénégal mm-hmm. Sénégal représenter ko dulu lu ndaw mm-hmm. Mm-hmm. ñu gagné si nag ay trophée yoo xam ne nii kenn xamu ko ndax ni footballeur yi di gagné champion d' Afrique. ni basketteurs yi di gagné champion d' Afrique. ñeneen ak yeneen sport yi di gagné champion d' Afrique. Mhm. ñun boxeurs yi. Mhm. noonu lañ gagné champion d' Afrique. te bañ demee dañoo wan carrément ne leen carrément. Mhm. Sénégal moo fi nekk. te ñun dañ ko wan. drapeau bi te indi nañ médaille yi macha allah. <laughs> bravo en tout cas on est très content euh, léegi SG yow lay bàyyi nga wax balaa ñuy tëj waxtaan bi ak euh, président euh, à part Bintu ak Aram. Euh, am na yeneen champion ñoo xamante ni euh, ñoom ñoo am ci trophée yi waaw donc euh, à part Bintu ak Adam mhm. am nañ yeneen champion mhm. comme nañ koy waxoon tout à l'heure mhm. sept athlètes lañu yóbbu waaye set athlètes yooyu ñoom ñëpp ku nekk am na ñaari médaille ku nekk am na ñaari médaille parce que à la base li taxoon ñu dem mooy def les championnats en assaut biñ demee remporté nañ ko waaye Bintu moom dafa nekk double championne am ñaari médaille d'or Euh, ci am dans la catégorie de moins de 56 également. mu am deux médailles d'or nekk tamit double champion d'Afrique. Mhm. Euh, Aram Diallo. Mhm. moom tamit mu nekk championne d'Afrique en assaut. ba mhm. pare nekk vice championne. Euh, en combat. Mmh, mmh. Euh, mi nga xam ne mooy capitaine de l'équipe nationale également. dans la catégorie des mois de quatre-vingts. parce que moom sax dañu ko surclassé woon. Euh, mu nekk. Euh, champion d'Afrique en assaut. Mhm. mu dem tamit am benn type de compétition bu ñu woowee savate pro. Mhm. moom tamit mu dem fa nekk fa meilleur tireur en savate pro. Mhm. donc muy tam benn performance boo xam ne performance bu rëy la. ñu am euh, suñu yeneen ñaari athlètes yi nga xam ne moom mooy Adama Ndiaye. ak euh, sëñ Fallou Mboub. ñoom ku nekk am na deux médailles d'argent. ak ki nga xam ne nag moom mooy. Euh, Adama Ndiaye ak Mouhamed kamara deux médailles d'argent Sëñ Fallou Mboup am benn médaille d'or ak benn médaille d'argent mhm. donc en loolu mooy performance bi nga xam ne def nañ ko ak médaille yi nga xam ne remporté nañ ko mhm. euh, beneen am na titre nag bi nga xam ne bon euh, bëggoon nañ ko moom mooy ceinture savate pro bi mhm. malheureusement mujjul antu ah. waaye incha allah dinañ ko dem jëli ji ndax comme ni ko président waxee rek à chaque fois Euh, li nga xam ne moo ñu fi dese parce que euh, boo xoolee Sénégal sabar bi ni mu avancé mhm. avancé na telle sorte que on est très en avance par rapport ak ak Afrique mhm. ba yeneen dëkk sax boo xoolee ñii ñëw di compétir mhm. dañ leen di jéggaani France comme Cameroun par exemple am na seen athlètes yoo xam ne dañuy jugee France. jugee ba France ñëw Cameroun def championnat d' Afrique. fii nag ñun ñi fi nekk. fii leen jugee yeroo fi màggee fi pratiquer fi ñu. mais on espère que euh, camp d' entraînement yi je sais ndax noonu ngeen koy woowee yi ñuy defee bitim réew pour gën a performant euh, peut être euh, kilifa yi ñu dénk wàllu tàggat ci dem dinañ ci gën a jàpp. pour gën a mën a améliorer boxe bi nga xamante ni yóbbul nañu tey ba Sénégal am ci ay médailles ak ay trophées yoo xamante ni day gën a sagal dëkk bi président. léegi Pape lu ndaw lu ma bëggoon kii parce que sànq yaa ngi koy laaj. Euh, par rapport ak ñi nga xam ne dañoo bëgg pratiquer la discipline. waaw surtout lépp fépp fu ñu mën a nekk rek euh, bu ñu woowee au 77 866 02 02. ko defee bu ñu woowee ci numéro boobu. dinañ ko xool moom par rapport ak fu mu dëkk xool salle bi nga xam ne moo ko gën a jege. ñu daal di koy mm. surtout petite catégorie bi. yaa beaucoup de surtout ni ñu nekkee ay vacances nii. Euh, jël xale yi yóbbu dafay baax pour ñoom voilà voilà donc 77 866. 02 02 02 président yan compétition moo nekkaat seen kanam. moo xam national ou international. bon international bi am nañ ay jeux mondiaux yu war a am Riyad. Mhm. am nañ aussi tamit euh, benn tournoi de la francophonie. Hmm. boo xamante ne war na am aussi c' est au mois d' octobre. au mois d' octobre. voilà hmm. ñun personnellement aussi bon le coupe du président. Hmm. dañ koy organiser chaque année. chaque année boobu aussi c' prévu pour le mois de décembre. au mois de décembre ah. donc yooyu moo fi nekk comme disons comme ay kii. compétition yoo xam ne moo ñuy xat sinon aussi tamit Mbour. nga xam ne moom la entraîneur national bi fa la dëkk. Mhm. moom ku ñuy woowee abu Diouf Diédiou. Mhm. moom tamit ñoo ngi prévoir organiser eh, compétition foofu pour moom aussi ko mhm. voilà voilà euh, et quel sera message balaa ñuy ñuy tàggatoo ak yéen euh, euh, bu dee fédération bi yaa ko jiite baax na quand même ñu dégg message bi nga xamante ni da nga koy joxe jëm ci autorité yi jëm ci sénégalais yi mais jëm itam ci champion yi ñoom Bintu ñoom Aram ak ñeneen ñi àndoon ak yéen. dem ba nekk équipe championne d'Afrique. quel sera le message du président docteur Matar alors pour ñi nga xam ne mooy les pratiquants mm-hmm. surtout ñi nga xamante ne ñoom la dison fédération bi wóoloon yóbbu leen mm-hmm. je pense que ñoom seen bopp ils ont pu vraiment accumuler l'expérience qu'il fallait mm-hmm. parce que ku ci nekk euh, d'ailleurs pour anecdote bu ndaw dañoo capitaine d'équipe bi moom il de Fadial maanaam ci commune Nguéniène la bokk moom bi mu yegsiwee ñoom dañoo disons tenir à ce que ñu accueillir ko moom ak équipe nationale bi e quand il est allé là-bas on a rencontré le maire mhm. di ko féliciter aussi tamit pour ci parce que mhm. bi ñu àggee moom dalal na champion am tamit defal ko ay disons ay xéewal daal par rapport à vraiment ndam li nga xam ne am na ko et après loolu ñu dem dugg ci biir dëkk bi Fadial ils ont ils ont été reçus comme parce que moom mooy le premier champion d'Afrique disons que ñoom ku ci nekk. boo xoolee maanaam fi nga jaar. am na loo ci jëlee. aussi tamit bi nga yegg see fii ni ñu la tertoo xam nga aussi la valeur de ce que tu es de faire. Mm-hmm. dina tax ñoom ñu gën see góorgóorlu. Mm-hmm. et xam nañ ne ñun aussi bon on a benn ambition boo xamante ne c' est mm-hmm. pas un truc de l' Afrique mais plutôt mondial. surtout que mission bi yombul ci yow en fait. yombul yombul dara fii loo xamante ni lu national la. lu Sénégal yëpp bokk. yow ñu dénk lu ko nga war ko jëlee fii yóbbu ko fële. loolu defe naa. oyoful en fait. oyoful oyoful moom laa leen doon nee naa instant ah parce <laughs> doo nelaw bi ma nekk président ba boo ko naree boole sa liggéey. ak yooyu dafay dafay métti. mais bon sant yàlla loolu mooy wane encore patriotisme wala sentiment de patriotisme bi nga xamee ne mu ngi ci yow yàgg bëgg a defal sa réew. yàgg bëgg a jëriñ sa réew. ku nekk aussi tamit ñëpp mun ñu nekk patriote ci benn mbir. ku ci nekk dafa am ci looy yëngu si loolu nga mën a wane sa patriotisme. donc ñun on essaie vraiment de le faire. Mm-hmm. ci fi ñu nekk peut-être lancer un appel à tous ceux qui sont des autorités locaux xawma local autant pour pour que vraiment ku ci nekk gox bi nga nekk nga fexe nooy jàppale ñi fa nekk ñu mën a implanter discipline bi foofu pour disons plus de rendement pour mmh. discipline non seulement mais plus aussi pour ñi nga xam ne ñoo fa dëkk parce que képp koo xamante ne yaa ngi koy profité da nga ciy gis vraiment ngëneel mu mel la ci lu ndaw euh, la fi yegg si mais ñi fi jot a jaar koo gis mu AVC <laughs> donc aussi sport bu <laughs> après on on le temps de vraiment discuter de ça parce que am na ay protocole ñun yoo xam ne dañ koy defar. teg ko pour ñi nga xam te ils ont déjà eu benn attaque. Mhm. en AVC. Mhm. pour faire pour que ñu mun leen permettre une rééducation et tout ça. donc ba ci wér gu yaram sax. Euh, def sabat bi dafa baax pour pour la application yu ci nekk. Ah. yooyu noonu yëpp peut que là on est là pour les champions. on n'a pas le temps d'en parler mais une

peut-être dernière question bi day nekk quelles sont les attentes yu fédération sénégalaise de savate euh, par rapport ak yi lan mooy attentes yi. waaw waaw moom en fait ñoom euh, je pense que euh, comme ni ñu ko mën a waxee résultats yi ñoo ngi wax. Mhm. et ils savent que ne ñun on est là. on fait ce qu'il faut mhm. léegi ñun ñoom ñooñu dasi il faut que ñu gën ñoo jàppale pour que yëf yi gën a mën a avancer mhm. parce que ni mu la ko doon waxee sànq bu ñu amee structure rek ay infrastructure plutôt les choses parce que soxla nañ loolu autant à Dakar que dans toutes les régions mm-hmm. Mm-hmm. fépp fu mënta nekk mm-hmm. bu ñu fa mënee am au moins benn ring bu fa nekk rek déjà c'est quelque chose ça pourra permettre à la discipline de se développer parce que l'objectif de la fédération c'est carrément de former des champions du monde et loolu pour am ko aussi il faut que dès la petite catégorie nga commencer di leen defar ñuy yëg voilà donc il une progression mais on peut faire dix vingt trente fois mieux que ñi nga xam ne ñoom ñooy les entreprises yi fi nekk. Mhm. pour que ñu gën a mën a peut-être jàppale ñu sur le plan des des RSE. Mhm. ou parce que da ngeen di soxla ay sponsors. comme toute fédération effectivement. bah oui euh, il faut que entreprise yëpp que muy privé euh, wala public. ñëpp ñëw jàpp ci. Mm-hmm. comme sport yëpp. football bi ni mu amee orange am Sonatel. Mm-hmm. Euh, savate bi war am orange war am Sonatel parce que jaay drapeau Sénégal mooy seen mm-hmm. objectif. en tout cas ñun on est là on représente le pays. te képp xam ne dëkk bi ñor na la. comme ni ñu ñoree. war nga ñu mën a jàppale ànd ak ñun pour ñu avancer. on va le faire pour les sportifs que autant pour la population d'une manière générale parce que ñëpp a a gis seen bopp ci savate numéro de téléphone en contact ak yéen comment faire. numéro secrétaire ah même numéro bi numéro bi. ok d'autant plus que ñoo ngi ci Facebook bi ak euh, fédération sénégalaise de savate. Mm. merci d'être passé nous voir et félicitations euh, xam naa li ci des. Euh, équipe sport bu télévision Futur Média Mame Fatou Ndoye Mamadou Ndiaye ak sama gars yi mhm. euh, dinañ ko gën a topp man moom damay nekk porte parole fédération bi <laughs> parce que président bi ñoo bokk voilà affaire de famille la koy def quoi <laughs> merci docteur Matar je que yaay président fédération bi mhm. et ñu ngi gërëm bu baax SG félicitations au champions les deux championnes qui étaient là euh, Aram ak Bintou on vous félicite et puis on espère que ci yeneen compétition yi di ngeen indiwaat yeneen i médailles merci d'être passé ma sama yi voilà Yap je t'embrasse très fort xam naa ne elle doit être très contente ak toute la famille 6 et je reste convaincu que euh, waa camp Abdou Diassé yëpp war nañu kontaan et fier de docteur euh, Mactar Ciss euh, président fédération sénégalaise bu savate moom lañ doon